dañu jëm élection présidentielle le 24 février le 25 février 2024 élection présidentielle Nous avons suñu candidat bi nga xamanteni bi ñu président Macky Sall ne ko nañ la xam nañ ne xam nga dëkk bi xam nga nit ñi xam nga réew mi xam nga parti bi xam nga coalition bi xam nga politique nañ la pour nga candidat mu ne ànd ngeen ci ñëpp de ñun de ànd nañ ci ci parti bi ci Benno Bokk Yaakaar mu ne dangeen di bind sart bi pour ne ni ànd ngeen ci ñëpp bind sart bi mu xalaat tëju waxtaan ak ñëpp consulter génn ne Amadou Ba la tànn parce que gis naa ne am na profil bu baax pour mu nekk seen candidat góor yëpp ànd ci nag góor yëpp ànd ci ñu ne nag Amadou Ba nag mooy suñu candidat ñun. léegi nag fi ñu toll mooy politique ay tolluwaay la weesu nañu tànn candidat tànn nañ ko ba pare xam nañ ko loolu weesu na fi mu nekk nii li ci des mooy am parrainage parrainage nag ci la ñuy natte su ñu nee Tëngéej commune de Rufisque Est mille lañ leen laaj ngeen am 15000 mooy liggéeyu ñu de su ñu amee mille mooy liggéeyu ñu de su ñu amee 17000 ñu ne ñu bien. Si nous avons 20 000, nous sommes très bien. Si nous avons 25 000, nous sommes excellents. Mais si vous avez excellent, vous avez bien. Vous avez 17 000. Vous avez atteint notre objectif. Nous avons atteint notre objectif. Nous avons gâché. Honte. Monsieur le maire, il faut qu'on soit pragmatique. Nous sommes dans le parrainage. Amadouba, moi, je suis candidat politique. dañu wane dañoo ànd moo tax gis nga image bi image bu rafet la ñu gis Nafissatou Diouf toog Albert toog parti socialiste toog Yatma Fall toog ñu gis mouvement yi toog alliés yi toog loolu dafa rafet image bii nag la ñu war a doxal yaatal ko ànd ci parrainé dem ci campagne dem ci élection yàlla may ñu dam SCBFI, 10 comités électoraux 10... 10... am comité bounek, ou le sous comité bounek, c'est responsable Nous ñëw déposer ces parrainages... dimanche prochain 17h fille, rendez-vous pas dimanche pas suba 18h nous la ñuy sous comité électoral bu le groupe des jeunes ngeen joxe nous calculer on évalue consolide, consolider continuer donc nous sommes avec méthode et organisation di jeexal rek parrainage bi nak suñu ragalé parrainage quartier duñu parrainage suñu ci kër yi parrainage amul luñ na fi président Macky Sall fi liggéey kenn liggéey ko fi dañ daan nag suñu ñëwee dañ ko liggéey mais ñun waxaguñu suñu ñëwee lu ñu liggéeyagum la ñu wax président nag liggéey na te li mu liggéey mun nañ koo wax te suñ ko waxee nit ñi mën nañu déglu waaye nag dafa am loo xamante ne aussi am na solo parce que Tëngéej nag la ñu dëkk soo leen demee ci kër yi dañ leen wax ne tali bii yàgg na kenn defaru ko route nationale bi boulevard Maurice Guèye soo leen demee dañ leen wax ne kanaal yi waxoon nañu dañ koy defar defaruguñu ko nañ leen wax ne tali bi yàqu na ak lii ak lii fu ñu leen ko waxee nag wax leen ne boulevard Maurice Guèye bii travaux yi léegi mu commencé waat ñu gis ko te incha allah dina pare balaa fin décembre commencé na très bien canal bi canal de l'ouest dinañ ko fermer tali Arafat guy Mouride dinañ ko defar commencé na donc soo leen duggee ci kër yi wax leen li nga xamante ni liggéey nañ ko ak li nga xamante ni dinañ ko fi liggéeyaat comme ça ñu am parrainage